waaw vu que match bi moom dafa di match boo xamante ne dañ ko waajal ñu ñëpp euh, match bi match bi fale ñu gën si ak résultat bu positif moo tax tey ñu ñëpp ñun dirigeant yi yëpp ñu dem à fond pour mën a jëli résultat positif bu ñu solo woon pour mën a def suñu maintien bu ñu soxla. solo nii daa du dangaa yokk cere doole ñëpp. waaw waaw vu que dëgg toog naa lu yàgg blessé euh, damaa dem sama bopp rek di entraîner entraîner entraîner doole moo tax tey yàlla may ma ma dugal sama premier bi saison bi. yàlla jëm kanam mais xool euh, fan nga jëm ak bi ba ngay siyee métier wala nga bëgg a jàll ci kanam. non instant moom dañoo bëgg a dellu ci kanam rek avancé waat waaw euh, concentré si coupe bi waaw ñu ñaan yàlla si borom mu ñu final ci coupe du Sénégal bu ñu ñu ñoo jëm ñi ak ñoom.